رضيت عن المولى تعالى الذي ربى وادي وأغناني وأكرمني ربا daarul xuraan Touba daaru manaan ci njiital sëriñ Maxtaar Jenn di daar joo xam ne ñu ngi ko sos ci atum 2006 waaye ànd ak barke ak ñaanuk sëriñ Saaliwu Mbàkke 2006 si daara joo xam ne ci menn mbaar la nekkoon daara ji màgg na tey jii ba am jëmm ju ràññeeku ci biir Touba ak ci biir Sénégal gi yépp waaye ami jaaruwaay yoo xam ne moo ko may daraja ju kawe ak taxawaay gu leer si njàngum alxuraan ak njàngum dina ju matale daaru xuraan Touba daaru manaan si njiital sëriñ Makhtar jenn ñu ngi daal di samp si njàngaleem alxuraan mu wér moo xam ni dañ ci daal di jiital cosaanu njàngum daara joo xamante ni bii ni ko mag ñi daan jàngalee noonu la ko daal di amalee ginnaaw bi nga xamante ni bii moom si boppam moo nekkoon jàngalekat bi am ay jàngalekat waaye tamit taqoo bu baax ak ñi nga xam ne ñoo di ndongo yi dem ba daara ji nekk lu am jëmm daal di màgg lool ba waajuru ndongo yu bëree bëri wóolu li nga xam ne moo di njàngale mu sell mi fiy amal ci firndeel at mu jot jamono ji daara ji dina mokkaloo ay ndongo yu takku mokkal gu sell ñu ànd ak bind di beqi firndeel na ko seen taxawaay bi nga xam ne dañ koy amal ci at mu jot ci weeru koor ci naafila yoo xam ne njàngum alxuraan mu wér la ci ay ndongo yu mokkal ñoom ñépp mokkale ci daara ji waaye it du ci góor ñi rekk mokkal gi dafa fasit ci soxna yi nga xamante ne bi ñoom it seen xeetu njàngaleen mu mucc ayib mi ñu leen defal ak taxaw gi war ci wàllum soxna ba ñu génne fii nekk dëggi-dëggi soxna yu mën a jariñ askan wi ginnaaw liggéey bu mag bi nga xam ne am na si daaray alxuraan ji si lañu ñu jublu nag ci liggéey jumaa ju mag ci bërëb bi jumaa joo xamante ni bi dinañ fi amal julli juróom yeeg julli jumaa ñi nga xamante ni bi ñooy imam yi ñoom ñëpp di ay jàngalekat ci daara yi waaye tamit taxawaayu ndongo yi am si solo lool rawatina weeru koor ak naafile yu ñu fiy amal ñoom ñëpp mokkalee alxuraan bi ci daara ji njàngum alxuraan mu ànd ak njàngum majalis bi nga xamante ni bi su jumaa ju mag ji nga xam ne moo gunge daaru alxuraan ji fi daal di liggéey it fi lañ koy daal di amalee daanaka ngoon gu jot mu nekk bëru bopp njàngum xam-xam mu matale si wàllu majalis di bind mu ñuy jël saa su ne si atum 2023 complexe scolaire franco arabe bi daal di taxaw ñu duppe ko kër maam awalo di complexe boo xamante ni bii dañ fiy jàng franco arabe yeneen i langue majalis waaye tamit yeneen i yu mucc ayib ba ci ay métiers ak formation professionnelle bu ñu fi amal ngir ndongo yi bu ñu génnee am xarañteef goo xam ne dina tax ñu mën a dugg ci li nga xam ne moo di monde professionnel bi maanaam nekk ay liggéeykat yu xarañ. complexe bi am ay cycle muy élémentaire moyen ak secondaire waaye tamit di génn ay lijaasa certificat d'études BFM ak baccalauréat waaye di ay diplôme d'état maanaam lijaasa yoo xam ne nguurug Sénégal da ko reconnaître di njàngale moo xam ne dafay tënku si njàngale mu am solo xam-xam bu am njariñ ak teggin yu ñu gërëm ilmu naafi amalu saalix ak adabul mardi ni nga xam ne noonu la ko yittewoo Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou xalif général des Mourides si orientation yi nga xam ne moom la amee si njàng mi rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba complexe scolaire franco-arabe Kër Maam Awalo di complexe boo xam ne dafa ànd ak confort bi matale yépp nag ngir ndongo yi man fee jànge njàngin mu mucc ayib moo xam ci bërëb yi moo xam ci administration bi ci salle de classe yi ba ci environnement bi nga xam ne moom la ndongo yi nekkee lépp dafa dëppook njàngale moo xam ne day bijji xerum xale yi ba mu gën a ñoŋ moo xam ci bloc A bi ñu duppee daarul alimul xabiir bloc B bi ñu duppee njennee la gan ak bloc C bi nga xam ne moom la ñu duppee Touba Xelkom si biir complexe franco-arabe Kër Maam Awa dañu fi amal lit li nga xam ne moo di enseignement classique maanaam njàng mi gën a wasaaroo si réew mi waaye tamit jàpp ndalal ñi nga xamante ni bii mokkal nañu alxuraan ba noppi au lieu ñu fiy def juróom-benni at maanaam 6 ans dañuy ne accélérer seeni version ñetti at lañu fiy def ngir mokkal nañu alxuraan ba noppi seeni xel bënn na seenam njàng ñu tënk ko si ñetti at. ci biir complexe bi it am na ay jumtuwaay yoo xam ne mooy gën a yombal ndongo yi nekkin yi moo xam lu jëm ci cantine scolaire boo xam ne lépp lu jëm seen wàllum xewlu dina ko taxawu nu mu gën a mucc ayib waaye tamit wàllum gëstu di bibliothèque boo xamante ni bii daara téere la ci biir complexe bi ba siit seen wàllum wér yaram ak post boo xam ne wàllum yi la ngir gën a taxawu ndongo yi ci wàllum wér yaram gu gën a ñoŋ ngir seen dem ak dikk jàpp ndal gi it ay bus yu ñuy gën a yaatal ci biir dëkk bi ngir mu mën a jëli ndongo yi deen indi ci bërëbu jàngukaay bi niki ni mu amee ci daara yu kawe yépp noonu it lañ koy daal di amee ci daara ji daara ji nekk ci espace boo xamante ne bii mu ngi toll ci 5000 mètres carrés yoo xamante ne bii liggéey nañu 2000 mètres carrés yépp mu des 3000 mètres carrés yoo xamante ni bii jubluwaay gi moo di yaatal fi projet yi mu jëm centre de formation professionnelle ak yeneen i bërëb yoo xamante ni bii jubluwaay gi doonul dara lu dul gën a yokk xarañteefu ndongo yi ngir bu ñu génnee si njàng mi amal njariñ société bi. muy njàngale mu mucc ayib ak ay jàngalekat yu xarañ lool war a tax ñi nga xamante ni bi ñoo di waajuru ndongo yi it gën a yokk confiance bi nga xam ne teg nañ ko si ndodd ñi nga xam te ne ñoo di jàngalekatu daara alxuraan ji waaye tamit ñi nga xam ne ñoo nekk si complexe scolaire franco arabe bi si njiital sëriñ Makhtar Diène mi nga xam te ne bi yitteem jépp moo di yokk xam-xam si ndaw ñi ba ñu mën a nekk ñu jariñ réew mi ëllëg ngir bépp information booleen leen gën a soxla mën ngeen a jokkook complexe bi si 33 978 90 90 wala si téléphone portable 77 256 12 86 wala 77 404 99 03 daara alxuraan Touba Manaan ak complexe scolaire franco-arabe Kër Maam Awa Lo ci njiital Serigne Makhtar Diène mooy ñaanal xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér